TQG Touba Quincaillerie Générale ñëpp xam ko ci qualité moo dellu si indil leen ay produits de finition ak décoration di lu am solo lool ci wàllu bâtiment BA13 di plaque de plâtre isolante baax ci bépp aménagement intérieur mën nga caa liggéey ci anam bu la neex xew na lool it ci jamono bu la neexee tam lambris bois di décoration bois rafet lool ci résidence hôtel wala sa kër borom daraja yi taamu nañ ko lool. lii di contreplaqué yu TQG moom tax na meuble importé wàññeeku bu baax ndax liggéey bu rafet bi ci doomi réew mi amal ak contreplaqué yu TQG mën nga caa defarit cuisine yu rafet te dëgër ay comptoir ay meuble de rangement ak décoration carreau parquet it ci mëninu TQG la bokk ay design yu wuute waaye yépp taaru lool TQG Touba Quincaillerie Générale gunge leen taxawu leen ci seeni projet bâtiment ba lépp sotti ci anam yu mu gën a rafete ca xéewale moo ko tax a jóg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 dellu di ndokkeel jullit yépp di fàttali sunu bopp di leen fàttali ne weeru koor wi weesu na xaaj loolu li muy taktale mooy bu yàggutoo lañu ko doon séentu looy séentu nag ba gis bopp ba gis digg ba cat laa cay topp noonu la yàlla binde jamonoom ñu baña wàcc ay yoxo baña a naagu defe ne liñ def lépp baax na ab jullit dëgg-dëgg lu mu def te yàlla tax bu mu geesu ak lu coow la bari bari ca gannaaw ndax su geesoo rek mën na ko yéem yéem jëfam te yéem jëf de jàq jëf moo tax bii aw nit ñëwee fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko ñun dañu laa noppal ndax bi nga wootee dañoo daal di nangu fa saasa jaasi génnut mbaram paaka génnut mbaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne leen bu leen naagoogu ne gëm nañu yàlla dëgg dëgg ak la mu waaye da ngeen naan dugg si nañ ci lislaam ndax dugg ci lislaam ak gëm yàlla dëgg dëgg am na diggante waaye ku dugg nag te tënku ci ndigal te bàyyi bu yàggee dana àgg mën na ca àgg qaalat al arabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna dal ne ñàkk dugg googu ñu dugg ci lislaam te jaay si génnut mbaram lu may dañoo dégg daal di gëm bu mu tax nag ñu yëkkati ay wagg ñoom dañoo war a sant yàlla mi leen dugal ci biir lislaam yamunuuna alayka an aslamu qul la tamunu alayya islaamikum islaamakum bal illaahu yamunu alaykum an hadaakum lil iman eh, am na fu doon tere it kuy ñax rawatina digganteem ak yàlla ci lu bari lu mu def wala tamnun tastakthir moo tax li jotagun a jàll ci weeru koor wi mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu sëriñ bi buñ ko gënee jegeel sil bind na ci ay mbindam di jàngale yéem jëf nu muy yàq jëf yam ko dendaleel benn jegu ca dafa jël naw jëf jiital ko teg ca jëw teg ca bañ nit koo xam ne defu la dara teg ca kañaan teg ca loo def rek bëgg nit ñi dégg ko doonte yàlla tax di ko def wal ujbu wal ghibatu wal bughdu al hasad aydan wa sumatun naha anhu samad yooyu yëpp benn bu ci nekk gàkk la boo xam ne suñu boroom daf ko tere li tax mu teree ko mooy nit ki day defe ne mi ngi jëf muy baax te dara baaxu ca dana wax ak aw nit ëllëg ñoo xam ne defe woon nañ ne seen jëf jure jiñ jëf tañ dinañ ko nettalil ba tax ñu geesu ko danañ ca am ak ëllëg nee na kaay ma yee leen ci bu ëllëgee am na ñoo xam ne dañuy sooy sooy mooy koo xam ne daa yaakaara jàpp la muy rëbb ci àll bi dunde ko dem dem gisul lum jàpp mu dellu seen loxoy neen hal nunabbiukum qul hal nunabbiukum bil axsarina amala alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa mooy koo xam ne defe na ni lee mu def jal bee mu def mu ne jag jaggaaral lépp a jag mën naa jag waaye la bokk na ci li koy gaaw a xañ mooy mu geesu ko rek ne gis ngeen maa ni toll maa ni defe ndax Seydina Omar aji woon na Màkka ànd ak doomam abdullah ibn omar abdullah omar ne ko nit ñee ko bari nañ ci aj gi fees na dell de seydna omar ne ko neel ñi armal bari nañ waaye ñi aj si bari wuñ nag da nga naan ñi armal bari nañ soo ko waxee mën ngaa wax wax ju maandu waaye soo nee ñi aj si nag ñu néew néew la doon mooy ñi nga xam yàlla leen yëkkati moo tax jaamu yàlla gu jóg seytaane dana ca laxasu yàqal ca aw nit bi sëriñ bi jàngale naw jëf nag mooy nga defee ne lii ngay def yow dong yaa ko man yow dong yaa ko àttana def bu la ko nit ñi xasee ba tàmbalee waxal rek dangay bëgg saw tur di gën di siiw ngay gën a sonn muy gën a yàqu yàlla nañu lu mu musal ndax nee na naw jëf li tax ab jaam waru koo def mooy su xoolee ci ay nawleem du xam lu mu defal yàlla ba tax yàlla defal ko lii mu man ba di ko def te bu seetee diggante ma boromam dana xam ne doxagu ca benn tànk jëm ca ci li ko war diggante ma boromam ndax fi dox jëm mooy nit ñi di ko waxtaane ñu di ko séen di ko xool bokk yi bi jamono tàmbalee doy waar mooy bi fi sëriñ bi nekkee ginnaaw si mbindam laa tiim nit indi na fa lu nekk dem te kenn xamu ko moo yàlla ñoo koy xam moom ma ko fa indi nit ña jariñoo ko waaye bi seytaane tàmbalee bari doole lool lool mooy lu waaye da jox ak danaan kaay leen wane ko ñu yóbbu ko suñ demee ne ko nangam lañ la yët ñu wane la mu indi filmé ko ku nekk gis ko yéem ko ñu ne gis ngeen leen ñu de ñun de yéemuñoo kenn ñoo tollu nii loolu nag su boobaa ku ciy séentu ak pay séentu ko ci keneen ku dul yàlla yàlla moom du wax la ngay séq moom du ko wax mën na ko génn bis nag ëllëg ne la mi ngi nii sab xol sedd guy wala ab xolam tàng moom mu defee ne baaxoon na te dara baaxu ca ndax yàlla kenn du ko boole ak lenn yàllaak saa boo ko waxee taxaw na ne ba ba ngay àggal ko kaw ka ba xam kooka mën na am déet waaye loo ko xas ba tudd it day déglu ba xam da nga ca boole keneenam déet waaye loo tudd keneen nit moom bàyyee na ko ko moom moom soxla wu caa bokkati du fecc li ndab wala kaay benn place ci des yàlla na ci dugg déedéet loolu nit a ko moom benn place ci des kaay yéeg déedéet yàlla du yàlla foofu moo tax mu ne bu kenn jàpp ne li mu def daa baax ba sutane ko nit ñi ba ëllëg mën na koo jariñ loo xam ne keneen ku dul moom doo jariñu sukkandiku ci jëfam kese kese déedéet gudd na wa anna man ala siwallaahi atamad ci jëfam anhu taxalla wa tawa yow man nakat bu njëkk ku ma takk ab sareet buy tàggale fas wa ak sareet ba wala machine nji wala mbay dañ naan ko rékkil fas wi mooy tàggale ko machine bi ku ne dem fa mu dëkk jëf nag joo xam ne boroom da ko yéem bëgg nit ñi di ko waxtaane loolu nag day fës lool ci weeru koor bi da ngay dégg ñu naan diw moo yóbbul dëkk sangam nangam dimbale leen ko ci koor gi xanaa yàlla taxul su yàlla taxee kay mën na ko teg ca kay boroom dëkk ba rek ne ko su ma sañoon mu yaatu bu boroom dëkk ba su yaatalee jaanam wàcc kooka jaanam wàcc su yaatalut ka joxe moom jaanam wàcc na yàllaa tax muy joxe waaye nag saa su ne ñu def ko ab jàll mu ne fang fangaaral sëriñ bi nee na loola ku ca def yaakaar bu ëllëgee day jëf ji day tege nee mu tege ne mooy du ko soxla anhu taxalla wa tawaa yow man nakat yàlla nañu ci yàlla musal wa annahu yumkinu an laa yuqbala li kasrati al ilali fiihi faaqila kasratu al ilal mooy ay timpi tampa yu cay nekk ci mbubb mu weex ñu def ca ay toq toqi daa am na ñu xay ñoo xam ne dutuñ bëgg a sol mbub moomee lu ñu rax lu dul yàlla nag noonu la ci yàlla di mel da ko koy jox moom daal mu moom ko moo tax mu ne wa rubbama ibadatin kathira qad afsadatha lahadatun xaqira bari na jaamu yàlla goo xam ne yàlla da ko doon nangu di ko nangu di ko nangu ba yàgg mu ne ginnaaw am nañ fukki fan ak juróom ci koor gi naa xool ba xam naa def binaa bi sàngam nangam laa yóbbu bi sangam nangam rakka laa julli bi sangam nangam ci alxuraan bi sangam nangam ci xasida moo tax da ngay dégg naan man naan moom euh, ba ko ñetti waxtu gëjee fekk ceeb daal kenn xamul kañ la woon balaa jot mu ne fojjat waaj lu mu néew néew dana jàng ñaar fukki isib lu mu néew néew dana jàng junniy bayit ci xasida yi ñu door a salaatu bu sëlma léegi foofu lay toog yor kurusam di tocc ci ñu ne ko loo cay wax mu ne ah loolu nañ ko bàyyi noonu rek sax ñu ne ko bàyyi noonu te xam la ko jiitu bu ko defee bu bët setee nag ma dem liggéey yi foofee may liggéey moom saa su nekk bu dee kuy yaay niwuñ jaay rek maa ngi yor sama jukki wala sama dol te it ku ma dégg muy sàkku ndimbalit ku joxe ma joxe ku jeexul ma joxe te it nangam ak nangamit kenn mënuma ca waaw bokk yi kooku ci ku muy teg ci loxo ku muy teg xaw ma ngi teg ci ay yoxoom de waaye mi ngi dégtal nit ñi moom ba seeni nopp di fees dell donte nag loolu muy wax naan du ñàkk ñu dem roy ko ca ndànk waaye moom nag bu fekkee baaxam la tàmm na ko ba mu neex ci moom na noppi ndax sëriñ bi moo ne bari na jaamu yàlla gu bari gu nit def da koo xool rek xool moom képp waxuñu waxtaane ko de waaye geesu rek ne weeru koor yi la ma ci def rek mu yàqu am na ñëpp dañ naan dama gént dama gént ndax li ma taxawal moom ku taxaw moom faaw ngay ngay gént moom gis naa diw gis naa lii gis naa laa gis naa kii gis naa kaa gay tàll ko loxo na ko ñaanal ma mu ne amuñu solo sax de waaye am nañ yaakaar ne lu yàlla lu ñu ñaan yàlla dana ko def yàlla nekkul foofu kon jot na sëkk gannaaw weer wi xaaj na xol boo xam ne càggante ma nga ca woon wala bakkan bu faraw bakkan boo xam ne rëcc na boroom mu fexe koo jotaat xam ne li ci des bëreetut mu góor góorlu ci ba lu ko rëccoon ci fan yi jiitu mu dabaatal ko ndax weeru koor bi day ànd ak suñu dund di dem bis bu ci jàll manqué na ci suñu at yi fi waroon a am kon weeru koor war naa jox nit bind bu wóor bokk yi li tax ma ne sant yàlla gi mooy am na ñoo xam ne fekk wuñu woon weeru koor ba daaw am na ñu ko fekk te ko ndax ak bëgg nañ ko waaye taluñu kon bokk ko fekk te tal ko te am lu jox yàlla na gaaw ndax yàlla loo teg ci loxoom duutu yàqu day gën di bari waaye ñi nga xam ne it ñi ngi góor góorlu te nit ñi xamuñu ko te waxuñ ko kenn te yàlla rek tax dara méttiwu ci ca ñoom ba euh, tan xam lu wuñ genn jaamu yàlla nañ xam ne foofa mooy yoon wa te kat bokk yi dañ fee dañoo jëm foo xam ne fii ku xool weeru koor bi muy ñëw ak rek danga xam ne yàlla lu mu wax na da doon wax ci mandarga yowmal qiyaama la fay xew am ñu génn ne yonent bi sii loolu de naa du léegi yàlla ne ko demal wax leen ne innahum yarawnahu baidan wa naraahu qariba ci seen gis-gis daa mel ne du mas a ñëw ndax seeni maam dañ ko doon dégg seeni baay di ko dégg ñoom ñu di ko dégg ba ay ba ay mag waaye lu jege fi sunu borom la loolu boo xoolee bi ñu séentu weeru ko rek léegi rek ñu naan la genn wàll nga dem na ba teg danga xam ne kon foofee lañuy gën di jege rek ak li suñu gis di gàtt gàtt kon du weeru tayal du weeru daw res nangam ak nangam tax na mënuma ko woor nangam ak nangam tax na nangam ak nangam ba mu ne gàññ loolu kenn da ko lay fas kanam suñu borom ku mu jox gu wér jox la taw nga ne ci sa bopp di dem ak a ñëw di liggéey di wàcc te amug wér gu yaram te wér gu ku wér bokk yi mees na koo xam ci bu ngeen bokkee di ndogu am na ñoo xam ne soo bokkee ñoom di ndogu da nga xam ne dara jotu leen ndax bu dee naan danañ naan bu dee lekk danañ lekk kenn du leen ci ëpple kooku nag am na yan bu diis bu tegu ci kawam muy jaamoo ko yàlla ba mu rees wane na lay amut te waxoon nañ fi junni leen fi kare ne koor musta rey kenn kii koor gee ko rey musta am ku ko jéem da ko man te booy seet ndaje mi gën a xumb ci àdduna si at mu jot makka ci la bokk waaye lu nit tayal tayal lu nit yambare yambare su fa demee war na faa jël bind ci ne ab xol mooy jaamu yàlla ab xol ci la gëm yàlla di nekk ci la jaamu yàlla di di aju loo néew néew doole da fa gis koo xam ne yaa ko tane dafa mu jóge moo gën a sori fi nga jóge te muy yéem di ñokor ñokore waaye loo wéré di wéré da gis koo xam ne moo la gën a wéré di fuuf te teewu ko ñëw Makka waaye loo sawar sawar da gis ku la mën fuuf kon bokk noonu la ak ci xol la nekk kee wéradi ba nga tane nekk kee néew doole ba nga tane ko pas pas ba moo dëgër moo tax dana ñogoon ñogoon bu ñëw bu fay des sax des fa waaye koor gi la mel léeg-léeg nit teg boppam ci ab coono loo xam ne yàlla teg ko te muy gën mu metti fuuf woor te ma fàttaliku kilifa gu ne woon fii Touba suñu fa li lu Mbakke su weeru koor masaa teru daana wax ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii nga xam ne moo gën a ñor murid yi ci jamono yooya muy tabax jumaa ji nga xam ne lu waay am def na ko ca ci alal ak ci kattan am na ku def ab am njàngat ci jumaa ji jàngatut alal ju bari ji dem ca jamono yooya ak dëkk bi ni meloon nga xam ne am na jamono yooyu moom doom moo fa di tabax waaye kooku nam jàngat dafa ne ginnaaw bu jumaa ji noppee at yi ci topp suñuy julli dangay dégg ñuy saqat rek ndax ñëpp a tooy ñëpp a dog dañoo dog ci liggéeyub jumaa ji tam jarale leen ko lañ ko doon fonk fonk daana wax ne suba la weer wi tàmbali weeru koor bi ku ko man ci sag wér na nga ko woor ku ko mën a boole ak liggéey bi di xëy di liggéey ci jumaa yi na leen boole soo leen mënta boole bàyyil liggéey bi te dam woor kooku sàkkalul kenn aw lay koo xam ne it jamono da koo jàpp ba amut lu muy ndogoo ak lu muy mbëstaneeg lu muy xadde wala benn ci yooyu bu mu ko defu lay wu ko tee woor na ñëw ma dikk ko jox ba weer wi dee ba weer wi jeex daanako ko fàttali buñ ne tey la fukki fan suba la fukki fan ak benn daana ko fàttali te bu daan wax micro bi mu doon waxee mi ngi ci bopp lalam danoon nañ ma tàllal ñu tàllal ko mu wax ak waa dëkk bépp ku ca bokkut moom yaa ca boolewut sa bopp waaye génnewut kenn suñ ne tey la ñaar fukki fa it bu guddee ba ñu war a songu ñaar fukki ak benn it daana ko wax su amee ñaar fukki fan ak juróom mu ne muuri koor yi kon boog nit bu jëlee bu waree jël li ñuy wax li gone yi wax responsabilité gone yi moo tax ñu xam ko mooy xam warteef da koo war a jël su ko defee bu ëllëgee mu ne waxoon naa leen ko waaw wala déet su boobaa làmmiñ di tontu cër yi ñoo naan axa ah kay déggoon nañ ko ba nga koy wax suñ ko jëfee sa jaan wàcc seen jaan wàcc suñ ko jëfee wut yow sa jaan wàcc na wa maa alaynaa illa al balaagul mubiin yonent bi sallallaahu alayhi wa ko waxoon wa maa ala rasul illa al balaagul mubiin yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te may nu li ci des nu am wér ak tal gu ñu ko mën a àggalee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 TQG Touba Quincaillerie Générale ñëpp xam ko ci qualité moo dellu si indi leen ay produits de finition ak décoration di lu am solo lool ci wàllu bâtiment BA13 di plaque de plâtre isolante baax ci bépp aménagement intérieur mën nga caa liggéey ci anam bu la neex xew na lool it ci jamono bu la neexee itam lambris bois di décoration bois rafet lool ci résidence hôtel wala sa kër borom daraja yi taamu nañ ko lool. lii di contreplaqué yu TQG moom tax na meuble importé wàññeeku bu baax ndax liggéey bu rafet bi ci doomi réew mi amal ak contreplaqué yu TQG mën nga caa defarit cuisine yu rafet te dëgër ay comptoir ay meuble de rangement ak décoration caro parquet it ci mëninu TQG la bokk ay design yu wuute waaye yëpp taaru lool TQG Touba Quincaillerie Générale gunge leen taxawu leen ci seeni projet bâtiment ba lépp sotti ci anam yu mu gën a rafete ca xéewale moo ko tax a jóg TQG, notre force, la qualité, n'est pas un slogan, mais une réalité. Touba Quincaillerie Générale mu ngi leen di ñaanal kooru jàmm.